siyaar bi yëpp nag ñu jël ko teg ko ci loxol sëriñ Abdou Lahad mi nga xam ne nii moo sabab jataay bi mu jot lañu ko mbooleem bokk yi fi nekk waaye teg ko ci loxol sëriñ Cheikh Bousso imam nga xam ne mooy kilifa jataay bi mu jot li ko mbooleem bokk yi ñu fi fekk di nuyu tam sunu bokki jàngalekat yi ñu fi fekk waaye itam di nuyu sunu bokki jàngalekat yiñ fi fekk waaye itam di sargal bu baax dongo yi nga xam ne nii ñoom la yàlla def tey ñu mokkal alxuraan bañ leen di sargal di leen jox seeni lijaasa di am mbégte bu baax ci jotaay bi ak weer wi nga xam ne nii sëriñ biñ ciy fàttaliku léppam alxuraan la ko defoon lim am léppit ci alxuraan la ko jëlee waaye itam ñuy ay jullit te jullit mu bokk ci li ko war mooy mu aar diine lislaam diine lislaam nag ku koy aar yaa ngi koy tàmbalee ci aar alquranul karim ndax ñi bëgg a yàq diine boo fexee ba màbb alquran rek dangay ngay daal di màbb diine moo tax sax ci ba fexee ba xale yi di ko mokkal di ko sàmm ci seeni dënn loolu dafa bokk ci warteef yi nga xam ne nii jullit yépp la war ñun ñëpp buñ ko deful ñun ñëpp ay bàkkaaru su fekkee nag am na ñu ko mën a féetewoo nag di ca taxaw mu wàcc ñi ci des waaye sàmm ji mënta ñàkk te ku ne xam na ne ñiy séqal àdduna bi seen xeex bépp jamono yi ñu ngi ko jëmee ci luy néewal doole alxuraanul karim bu ngeen seetloo ci xabaar yi ci jamono yi ñu toll dégg ngeen réew mi ñuy wax Suède gis ngeen ñu fay def ay daje ngir di lakk alquranul karim loolu nag ñoom dañ ko def ay yoonu yoon waaye fekk tam am na ñu ko jiitu woon lakk googu ñu lakk kaamil bi nag su fekkul am ñu ko mokkal mën naa am bu seeni pexe jooyee bis dana ñëw alxuraanu karim bi gën a tuum ranke waaye kon moo tax jàngale gi moom moo koy sàmm mokkal gi moo koy sàmm kon ñu ngi rafet lu baax jataay bi di ndokkeel suñu ablaat mi nga xam ne nii mooy def liggéey bu mag bi ak ñu koy jàppale ñu nekk ci tam ci weeru safar safar tam ku ne xam na ne sëñ biñ ciy fàttaliku wax nañ ko léegi liggéeyam bépp mi ngi ko def ci alquranul karim wax na sax ne kanzil adab wal hadis laa jamo fi daw laa jamu zahab sama trésor sama ndàmb mooy téeréb alquranul karim waaye itam mooy xam-xam bi ci aju waaye du wurus du or moom laay dajale waxit ne fépp fu mu àgg alquran moo ko fa àggale rafaxani alquranu rafan xafada man saahu taqaddumi fan xafada mu ne alquran moo ma yëkkati ba ca kaw ba tax képp koo sama jiitu da laa naqari yow man naa da nga cey jaare suufe kon loolu lépp alquran moo ko defal alquran itam moo doon li ko doon giide lépp mu bindaat wax ne masikan bil kitaabi maska dariri bi yadil qaidil basiril muini te mooy ne ni may moyee ci téere bi day mel ne gumba gu ñu wommat na muy ŋoye ci yat wa koy yat wa koy wommat noonu la ci jàppe nga xam ne fu mu ko jëmee foofu lay jëm kon sëñ bi léppam alquranul karim la te moom ci boppam wax na ne diggam ak tubaab yi li ko ci gën a mett mooy xañ giñ ko xañ dëkk Touba di fi jàngale alquranul karim kon képp koo xam ne nii yaa ngi ci waaru jàngale alquranul karim yaa ngi ci waar yi nga xam ne nii bokk na ci toolu sëñ bi waaye bokk na ci waar yi nga xam ne ni moo ko gënoon a yitteel muy liggéey boo xam ne ni nag ñi nga xam ne ni ñoo koy méngoo laaj na ay taxawaay yu mat sëkk yu jëm ci ñoom waaye itam ñi ko seqal itam laaj na ay taxawaay yu mat sëkk yu jëm ci ñoom xam ngeen ne barabu jàngukaay bu mënti doon ña ko sëq mooy ñay jàngale ak ña fay jànge ak wayjur yi ak koñ ba nga xam ne nii fa samp barabu jàngukaay bi ñoo ñu seq daara ji nag ku ci sëb jéego matul rek day daal di feeñ ci daara ji kon nag dafay mel ne taxawaay yooyu jullit yépp la war waaye képp koo xam ne alxuraan yitteel na la war na la nga taxaw taxawaay boobu boo ñëwee ci ñi koy jàngale am ci responsabilité bu mag a mag ci jàngal xale yi yar leen teg leen ci aw yoon xoolit yoon wi nga xam moo gën a gaaw gën a jàppandi ñu mën caa jaarale xale yi te alxuraan ji di mokk loolu la muy tekki mooy li ñuy jublu mooy mokkal alxuraanul karim dafa am nag jubluwaay bi ak yoon wi ñuy jaar àgg ci jubluwaay bi jubluwaay bi moom du soppi ko mukk waaye nag yoon yi ñuy jaar ngir àgg ci jubluwaay bi moom léeg-léegi mën naa soppi ko ku nekk xam na ne jàngale mi léegi ay méthodes yu bees dugg na ci xam-xam yu bees dugg na ci xarala yu bees dugg na ci ba tax na mën naa gën a gàtt mën naa gën a woyof tuumuraank gëm gën a mën naa gën a wàññiku te du tee xale yi dañuy mokk yi karim mokkalinu rafet ku xam daara yu njëkk yi xam ne def nañ liggéey bu mag a mag ci alxuraanul karim waaye nag njàng mi daana yàgg lool nga def ñaar fukki at wala ñaar fukki at ak topp nga def ko ci daara mën naa am mokkal ga sax du demee noona boo ko defee boo fa jógee yàgg nga yàgg ci daara yi mooy tax léeg-léegi dootoo sawara continuer njàng bu ko defee ñu lay tudde kaang mu jigéen mooy koo xam mokkal na alxuraanul karim bu rafet waaye nag mënta xam la muy firi xam-xam diini it da koy raw ndax yàgg boobu yàgg ci daal di moo tax muy xaw a découragé nga gisit ne méthode bi ñuy jàngale bu njëkk danga daan jàng ba mokkal te araf yi doo leen mën a xàmmee bu baax siin siin sood ak doog mu xawoon a jafe ci xale yi lool pour ñu xàmmee ko ñu daan def diir bu yàgg di leen jàngal ay boole ngir ñu mën a bind loolu ku rek xam ne ne méthode yi bees yi wàññil nañu ko bu baax léegi xale buy mokkal day mokkalaale maxraj bu baax mooy fiix araf bi jaar ba génn da koy mokkalaale nga xam ne temps bi mu daan jël ci boole itam dootu ko jën tumuranke gi xale yi daan def nga xam dañu jàppoon ne kuy jàngal xuraan il faut nga tumuranke danga nga xiif da nga mar da nga tilim façon tumuranke yu baree bari itam loolu gis nañ ne ci góorgóorlu jàngalekat yi loola wàññiku na bu baax danga dem ci daara yoo xam ne nii wax dëgg yàlla danga gis ne xale yi condition yu baax la ñuy nekk fa ñuy nekk dana set lekk ga ñuy lekk dana set seeni jëmm dana set te du tee ñuy jàng ni war a jàng loolu itam bokk ci yu bees yi nga xam ne ni ñiy jàngale alxuraan dugal nañ ko ci système bi amit lu bari loo xam daanañ ko te xale bi muy dóor yu mett yoo xam ne ni xale bi da ciy gannaaw gi mën naa defi góom mu bàyyi ay jeexal yu bare bari loolu lépp gis nañ ne wàññiku na ci njàng mi barab yi xale yi daan nekk nga xam ne bari na xale boo gis muy daw jàng la ko tax daw jàng du bañum njàng waaye barab ba mu nekk condition yam fa nekkee moo metti woon ba mënu ko supporter tax muy daw loolu lépp nag gis nañ ne ak ak yombal ak beesal mu ngi ciy dugg boo demee ci réew yi fonkum njàng barab yi ñuy jànge daanaka mooy dàq seeni kër loolu day tax xale bu xasee dugg barab bi day neex ci moom ba bu génnee sax day yàkkamtee dellu si ci barab bi loolu lépp nag gis nañ ne ñiy jàngale ñi ngi ciy góor lu baax di ci dugal ay méthodes yu bees loolu nag ku koy def ku nekk ñoom wàccoon nañu askan wi kon askan wi ñoom ñoo ci des war a xool nu ñuy fexe ba jàpp ci ba liggéey boobu mën a sotti ni ko bëggee ndax bu njëkk buñ masaan di jàngale dangay yor daara yóbbu ko ci àll ba bu nawetee xale yi dañuy bay bu nooree ñu defar sàq yi ci sàq yi ci lañuy dund daal di wuti gi tax wutim ñax ñëw defar kër gi defar néegi ñu dëkk booba mën naa am xale bi buy jàng danga nga naan du ma fay dara wala boog du ma dugal dara ci daara ji waaye fekk na xale bi lay yor daara ji ñoom ñoo koy liggéey loola nag daa soppiku léegi léegi magasin nga am ci kër gi magasin bi da nga koy di fees ak produit yu seer lool yoo xam ne nii xaalis bare bare nga ci def door ko mën a duy loolu nag bu fekkente ne daal amatu nag il faut que waajur itam xam ne kon am na lu soppiku ci liggéey bi bu njëkk dañ daan taxani taxan moomee defatuñ ko léegi courant moom la ñuy lakk di ci jàng loolu amatul bu njëkk fi nga daan dëkk sàkket la daan doon mën naa am doo dikk dara léegi mën naa am da ngay luye kër gu cher lool di ca fay lu baree bari pour mën faa dëkkal xale yi loolu lépp nag bu amee kon tegtal la ci ne waajur yi xoolaat seen taxawaay dafay lu jot te waajur wu nekk war a bàyyi xel ci ne sa doom bu la ko yàlla joxee njàngam yow la war am pajam yow la war ab yaram yow la war lu ci manqué ëllëg askan yow la koy laaj waaye itam sunu boroom yow la koy laaj xale boo gis mu ne ci mbedd mi di sonal nit ñi di sàcc di agressé di sonal nit ñi jàppal na ci kër la génne kon waajuram moo ci def lam ca war a def te mën naa am bu ko ci defoon kon du ñu génn ci mbedd mi di sonal kenn kon ki la mën a wuutu foofu nag war naa am yow tam foo ko taxawe kon nañ fexe ba wàccoog daara yi ndax jàngale alxuraan métier la métier nag dañuy wax ne bu la mënta yor doo ko mën a yor ngir jàngalekat yi mën a toog ci daara yi jàngal xale yi ci nañ leen war a jàngale waajur yi dañoo war a wàccoog ñoom ba seeni yitte ñoom tam ñu mën caa gis seen bopp mën faa toog waaye nag boo ñëwee jox nit ki xale ne ko ay yaxam laa la laaj wala yu mel noonu te yow doo fa jaar ndokkale sax dog ko def waxuma laa nga fay dugal sa loxo ba nag bëgg sëñ daara bi def ci li ñu war a def loolu itam léeg-léeg dana metti ci sëriñ daara yi moo tax nga gis ñu bare ba dañuy am yéene jàngal alxuraan waaye dañu dugg ba ci biir rek ñu jékki-jékki dawaat génn ñi ci dese ko si néew itam nag dañ ciy jànkoonteeg coono yu méttee métti te loolu seen yéene ju rafet moo leen ci dugal kon waajur wu nekk na bàyyi xel ci li ñu lay laaj ci daara ji du ak fay ndax jàng kenn mënu koo fay rawat na njàngum alxuraanul karim kon la ngay dugal maanaam barkeelu nga koy tudde wala ak weexal loolu la muy tekk mooy lan mooy su ma amee doom ci daara ji su ma ca defee la ma boroom daara ji wax ba noppi su fekkee sama man man mate na ko war naa mën a seet loo xam ma naan lii maa ko jàppalee daara ji te nag mbooloo moo dem la koy defar suñu boroom def na ko fa mooy ñu am xam-xam ak ñu amum xel mu rafet ak ñu am alal ak ñu am kàttanu yaram loolu nag néew na lu ko yàllay boole di ko jox kenn di nit waaye da koo tas ci nit ñi moo tax bu ñu nosoo organisé wu defe naa ne ñi am xam-xam indi ñi amum xel indi ñi am alal indi ñi am kàttanu yaram indi defe naa ne liñ bëgg mën nañ ko am te kenn du sonn ci misaal tey ñi am xam-xam ñooy jàngale. ñi seenum xel rafet ñooy laabiire ñooy jàngale ñi seen poos attan ñoom ñooy jël financement bi bu ko defee kii nga xam ne kàttanu yaramam dong la am léeg-léeg daara ji day soxla ku ko setal wala mu soxla mu póot wala mu soxla ñu baas wala ñu mel noonu nga xam liggéey dool la ñoom mën nañoo ñëw méngoogu kon ku nekk ci ñun am nga taxawaay boo mën a taxaw ci daara ji loolu nag bu ko ñëpp koy def rek daara yi dana àgg fi ñu bëgg mu àgg fa waaye nag suñu doom yi dañoo bëgg ñu xam diine dañoo bëgg ñu yar leen yarub diine te la yar bi laaj nanguwoo koo def loolu tam wax dëgg yàlla du tax yëf yi sot te bari na koy gis mu indi doomam ci daara wala ci école boo xam diine lay jàngale boo ko laajee 5000 francs du la ko nangoo jox nga téyel ko xale bi ba xale bi dëgër mu jël ko yóbbu ko ci école boo xam ne nii leneen lay jàngale inscription ba dong ay junni yu bare bare la cay joxe waxuma laa rek la muy joxe par weer kon mbir mi ñàkk pas-pas moo ci bëgg a dugg ak ñàkk ngëm-ngëm moo ci bëgg a dugg waaye la la foofa jaral bu la ko fii jaraloon daara yi dañ mën a fonctionner niñ bëgg mu fonctionner noonu kon nag fii ci dëkk bii di Touba ñun ñoo ci ëpp warteef wax nañ léegi ne sëñ bi dafa waxoon ne li ko gën a naqari mooy li ko tubaab yi xañ dëkk Touba di fi jàngale alxuraanul karim kon nag loolee ko tubaab yi xañoon te léegi yàlla jàppandal ko suñuy loxo ñun ñoo ci war a wuutu sëñ bi liggéeyal ko ci ku nekk nag jàppal ne sa warteef la sa responsabilité la mooy ku nekk la nga man nga taxawee ko bu ko defee sëñ bi bëgg-bëggam ci dëkk bi dana mën a sotti waaye nag ku ñëw ci Touba gis xale yi ni ñu baree ci mbedd mi ak ci barab yu baree bari léeg-léegi da ngay xaw a tiit ku nekk xam ne ne xale yi ñoo ëpp ci yoonu murit waaye itam ñoo ëpp ci Touba loolu jërul sax ngay def études yu xóot waaye boo xoolee rek da koy daal di xam jataay boo dem xale yi ñoo koy ëpp loolu nag laaj liggéey bu mag a mag boo xam ne nii il faut ñu boole doole yi ngir mën ko seytu ni ñu ko bëgg seytoo kon résultat yi ñu gis fii du ak neen ñi koy def kon dañuy laxasaayu ba dëgër xañ seen bopp lu baree bari nekk ay xale yoo xam ne nii mënoon nañoo tukki dem moodu moodu ji mënoon nañoo defi commerce mënoon nañu wuti xaalis ne ko seen moroom di wute waaye ñoom ñu gënal leen ñëw liggéeyal si ci alxuraanul karim kon nag ñun ñoo leen ci war a encadrer war leen cee taxaw waaye fan yee passé rek dafa am ku ñëw ñuy waxtaan ci mbirum jàng ak jàngale mu tudd ma salaire boo xam ne nii ma ne ko sëñ bi salaire bi nga tudd leer na ne yow sa ndëkke dong moo ko ëpp la ngay ndëkkee ci weer dong ëpp na loolu te yow ni nga yoree doom yor ko njaboot kii lay jàngaleel daa yor ay doom yoru njaboot li la war war ko ci doom yi la la war war ko ci këram nga bëgg di ko jox loo xam ne nii moom yow la ngay ndékkee sax moo gëpp loola moom defe naa ne boo ko bëggee du sotti moo tax il faut ñu xam loo gis ci àdduna dafa am ak njëg njëg gi nag daf la koy jaral wala mu ñàkk la koo jaral te nag ñun ñëpp dañuy ñaan suñu borom mu may ñu njaboot ku ci yàlla joxul njaboot sax dalay jaral nga dem wuti ñaan weexal ci lu baree bari ngir yàlla may la doom doom jooju bu la ko yàlla mayee ba noppi nag defoo ci lañ ko war a def nag mooy delloo woo yàlla njukkal delloo yàlla njukkal nag mooy nga teg xale bi ci yoon wi nga xam ne nii ci lañ ko war a teg adduna bi njëkkante moo fi nekk ñiy defar xale yi lañ soxla ñiy yàq tam xale yi lañ soxla léegi nag ñiy yàq am nañ mooy yu wér di ko ci def di xëcc xale yi ci façon yu baree bari kon nag ñun ñi nga xam ne ni jàpp nañu dañoo bëgg a defar te am moyen war nañ cee jéem a def moyen yooyu ngir mën a xëcc xale yi loolu nag defe naa ne liggéey la boo xam ne nii ñi ngànk daara yi ñu ngi ciy liggéey liggéey ba sëkk mu des nag waajur yi ñu seqal daara yi war cee gën a jàpp xale yi toll ci jàng itam nag ñu gën leen a soññ ñu gën a farlu ci njàng mi ndax léegi li amoon bu njëkk wàññiku na léegi ñetti at nga mokkal alxuraanul karim da nga mokkal alxuraan te sa morom ma demoon jàngi leneen da ngay ñëw dab ko wala sax nga jiitu ko ci njàng mi te booleeg sa alxuraanul karim loolu nag occasion la boo xam ne nii defe naa ñu baree bari bi leen ko yàlla mayoon danañ ci profité bu baax a baax kon yéen itam ngeen gën cee góorgóorlu mu des nag ñi nga xam ne ni daara yi seeni koñ la nekk bépp koñ boo xam ne nii daara dafa samp am nañ warteef ñoom wu mag ci sàmm daara ji di ko jàppale di ko taxaw di ko toppatoo ci fànn yëpp waaye itam nag fexe ba yar bi ñuy def ci xale yi ci biir daara ji buñ génnee buñ gis ci koñ bi loo xam ne nii day weddi lañ leen waxoon ci biir daara yi loolu nag ku nekk da nga am warteef ak responsabilité bu mag a mag kon daal xam naa ne mbir mi xëy na guddi na da jotaay bi day demee noonu waaye ñi ngi rafet lu baax di ndokkeel si ablaat ci liggéey bu mag bi muy liggéey xam nañ ne liggéey bu diis la bu metti la waaye nag jihaad la jaayante la mu jaral ko mu nekk ci kon ñu ngi ko ci ndokkeel bu baax baax di ñaan suñu borom defal ko ci tawféex di ndokkeel itam ñi koy jàppale ci liggéey bi muy ay jàngalekat yoo xam ñoom wax dëgg yàlla dañoo laxasaay ànd ak moom ci liggéey bi ñu ngi ko ci ndokkeel di nuyu bokk yi ñu fi fekk yépp nag di ay jàngalekat di ay bokk di ay njaboot di ndokkeel bu baax a baax di sant di gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu oustaz allah waxtaan wi am na solo lool xeyru kalama qalla wa dalla gàtt na waaye lamb na ay njariñ comme ni nga ko waxee rek di oustaz Fallou Hassane Bousso di jàmbaar di jàngalekat ci université Cheikh Ahmadou Bamba di jëfante ak étudiants ya fa nekk jëfante bu rafet wax dëgg yàlla di lu kontaan ci bu baax a baax a baax ñun ñii nekkoon nañ sa sa taalib ay jamono nga yor ñu man matière ci manteq di ab fay la suuf kon boog jërëjëf oustaz mu mel ne ci tënk rek li oustaz waxtaanee waxtaanu am solo kon mbokk yi bu ñu ko déggee xam ne daara jii moom soxla na way jur yëpp xam ne woo na ndimbal bu baax ak taxawaay kon ku ci nekk rek war naa fexe xam ana lan la daara ji yittewoo la ko ci kattanam may mu taxaw ci te xam ne ku gis résultat bu am solo bii mu génne xam ne ñii fi nekk di yëngatu di fi jàngale jël nañ seen coono yépp ak seen waxtu yépp def ko ci ba tax li si am ak ndimbalu ki nga xam ne mooy Cheikh Abdou Lahad Bousso jàppale leen ci waaye bàyyi leen xel bu baax a baax a baax buñ ci limee ku mel ne sama nijaay sëñ Fallu Kebe jiite jenn daara ku mel ne sëñ Xaarim Diop jiite jenn daara ak mboolem ñi nga xam ne ñoo jiite daara daaru mel nam ji composé góor ñi taxawaay yu am solo yi nga xam ne am nañ ko ci biir daara ji moo war résultat yu mel yu am solo yu génne kon nag war nañoo yittewoo bëgg-bëgg daara ji comme ni ko Sëñ Fallu waxee ngir xam ana lan mooy tax daara ji résultat yu bëgg ci biir daara ji mu man di am sag jour te moo ñu fexe ba dugal seen loxo ci biir daara ji ci nekkuwaay bi ci dëkkuwaay ci barab lu mu mën a doon rek loo xam ne tax daara ji gën a jëm kanam kon jërëjëf yaa fadlata cheikh barakallahu fiik ahsanta wa ballagta kon sëñ Thierno Mbacke macha allah ci am solo bi ñu bàyyi leen continuer barakallahu fiik jërëjëf sëriñ Abdoulaye Yakhine ci taxaleexaar yu am solo yooyu kon mbokk yi sëriñ bi dafa wax ne daara ji amagul feet incha allah taala alarma bii ñu jëm lay am feet kon gone yi suñ jógee fii ca daara ji la ñuy delluwaat loolu ñu ngi koy fàtti wooyu juri dañuy woo soxna Ndeye Bigue Senghor mu jege si moo ñu war a defal discours français bi soxna Ndeye Bigue Senghor mu jege si moo war a def discours français bi ndax daara ji dafa nekk mu assasa li muy jàngalee alxuraan noonu lay jàngalee xam-xam ak mboolem xeeti xam-xam yi nga xam day jëriñ ak biir soxna day riiga Senghor bismillah